thank you ñu am kontaan ak ni ko xamee nag actuellement Kër Massar mën nañ ne mooy symbole banlieue bi mooy banlieue bi nga xamante ni moo gën a agité côté concernant la population. ñu ñëw si wàllu Sonko ñëw si wàllu Mame Mbaye Niang comme ni ñu ko xamee dégg ko DJ Akum mu nekkoon procès boo xamante ni tey démb Cour suprême dem na si statuer mm-hmm. mu am solo lool si élection yi nga xamante ni moo nekk élection yi jëm 2024. Euh, comme niñ ko déggee démb verdict bi wàcc na. Mm-hmm. goudé bi jaaxal na ci nit ñi wàcc na ci lo xamante tous les éléments étaient réunis. Mm-hmm. mu wàcc presque ay 22 heures. donc mm-hmm. ce qui a été maintenu moy que ni condamnation bi day rester. mais il y a une partie qui a été levée moy contrainte par corps contrainte par corps moy manam so joté ak nit mu am mandat daf ko wara fay. su ko fayul dañ koy jëlaat yóbbu ko ci kaso bi loolu lañ dàq.

lépp si wàllu élection yi nit war na bokk nit warul bokk am ñu ne. Mm-hmm. boo nekkee ñitum réew dem bay dem war nga mën a bàyyi ku nekk bokk nañ mm-hmm. bàyyi askanu Sénégal tànn kan moo war a nekk seen candidat. Mm-hmm. tey ñu si dalal di akum spécial mais akum gars yi si showbiz bi lañ la gën a xamee. Oh, waa leen jàpp ne tey dinañ gisaat beneen beneen bu bees. alors merci beaucoup Cheikh Anta nga moom. voilà ndeysaan merci beaucoup ça fait plaisir may partage ak yow plateau bi di la tout à fait pas comme les autres mais également des kilifa la moo assuré cadrage bi di nuyu képp koo xam ne rek à l'instant yaa ngi ñuy suivre à travers Dental TV comme je viens de le dire ça fait plaisir may bokk ak Cheikh Anta Plateau le grand journaliste ñu daal di waxtaanee ci actualité Sénégal politique bi ba li nga xamante ni moo di milieu showbiz bi man nag xam naa si milieu showbiz bi laay gën a sawar a wax quoi Cheikh Anta alors ma bàyyi rek nga wax ma lan nga ma indil tey ñu waxtaanee ci. li nga xamante ni développement mooy mbiru Sonko bi ba tey leeragul. donc nous sommes obligés tey conseil constitutionnel war na si statuer. bu ñu fàtte ni donc bu ñu ko tiré mu bokkoon si ñu war a. mu njëkk a jàll. Mhm. ki nga xamante ni mooy maître Clédor. Mhm. dafa defoon malaise. mu mhm. dul woon présent. donc tey la ñuy fermer par rapport au contrôle de parrainage yi. donc tey dinañ si statuer parce que ba tey leerul. dina bokk ak du bokkul ñaari cas yi ku nekk mi ngi développé. bataille juridique bi taxaw na ñii nee nañ day bokk ñii nee du bokk. dañ ko bëgg éliminer c' est qui est derrière tout ça. malgré tey li nga xamante ni cour suprême statué na ba ba loolu. Mm-hmm. donc on dëkk bi même mouvement depuis 2021 Sonko Macky Sall Sonko. Mm-hmm. léegi tax nit ñi dañ lay da lay wax ni man ak yow dina en <laughs> fait affaire yi mi ngi euh, bëgg a à sa fin depuis 2021 ba léegi Sonko ak bi mm. daa mel ni euh, euh, tey gi incha allah bu véridique bi génnee mm. problème boobu dina mën a dina mën a dina mën a leer du coup comme ni nga ko waxee gis naan maître Bamba moom nee na carrément Sonko perdul benn benn benn kii am droit mm. civil am mais également am na ñenn ñu ñëw comme maître la Diouf wax le contraire tu vois en tout cas pour l'instant ñun ñi xamaguñ dëgg bi fan la féetoo te xamaguñ carrément véridique bi nan la war a demee juste dañ ci am ay apprécié rek comme ni nga ko ko waxee léegi nii maître correcteur aussi dem bu daa mel ni dafa absenté woon je sais xam naa suba euh, tey incha allah. bu war na war na présenté tey la affaire yi war a mën a leer incha allah Sonko day bokk wala du bokk tey lay leer incha allah rabi. tout à donc lekk noonu nekkoon beneen euh, pàcc bi. akum samedi suba bi daa mel ne dina rëble. waaw mais samedi parce qu'on nous parle de Wally. Wally Seck on nous parle de de Youssou Ndour. on nous parle également de Sidi Diop. de Sidi Diop donc loolu moom mbalax beeg yu saf yooyu moom. suba suba suba yi Sénégal dafay neex. Wally day tëgg. Mhm. Youssou Ndour kenn doon ko présenté ci biir Sénégal. absolument day tëgg également mhm. Sidi Diop aussi day tëgg ndax mhm. je veux dire ñoom trois jege nañu fii la war a tëggee incha allah tëngeej ah, tonton Wagan xaw naka la mën a organiser affaire yi. ndax am na ñoo xam ne bëgg nañ dem ci Sidi Diop bi moom mu ngi fële Bongo X5 également ah, Youssou Ndour mais en tout cas Seexanta bi dina yëngu dina mais nag askan bi ñu ngi ñu ngi sàkku seen seen liggéey bu rafet bi ngeen defoon parcelle waaw parcelle am na loola fa defoon ay touche yu bees touche yu bees ak image yu doy waar moo tax moo tax Faramareen bi woo woowaat ñu mhm. pour ñu ñëw suba insha allah ci moom fële ca Tëngéej mhm. euh, milieu showbiz bi instant yi dafa xaw a jaxasoo mhm. di ku sexante yow xam nga yënga ni temps yi njàpp dafa kitti Sidi Diop dem si Wally Ballago Seck Ndeye Ndiaye Banaya moo ko njëkk a def dem si Wally Ballago Seck Sidi Diop dafa wéy trop trop mais découragé wul benn yoon moom Sidi d'après euh, ñoom bëritoo maanaam ñi jege Sidi nee nañ si Sidi Diop ki a créé Ndeye Ndiaye Banaya si Sidi Diop

Euh, euh, Faramareen yi. absolument képp ku ñëw la ko sekk moo tax nga ñëw. Mm-hmm. mais Sidi Diop bu daan tëgg nit ñi bu ñuy ñëw ñii euh, Sidi Diop moo leen indi. nii mm-hmm. Ndiakhou Sow moo leen di indi nii Ndeye Ndiaye Banaya moo leen di indi. le contraire si la ko sekk mooy képp ku ñëw si soirée Wally yow Wally moo la indi. waaw mais xam nga Ndeye Yaay Banaya par rapport mm. euh, am na ñoo mm. xamante ni ay get ah, moo leen moo leen dafa dugg rek waagaan sandi caméra bi yuux tëb. waaw la dafa bëgg mais xam la. <laughs> waaw si si si daaru la ñëw si combat bi nga xam ne amoon na entre Modou ak euh, euh, Boy Niang Modou daa mel ni am na appartement am na kii euh, terrain bu mag Pikine waa Pikine mhm. ñoo ko jox. non mais des na. <laughs> non lan moo des non Pikine dese na ñaar ñoo xamante ni Modou Lo. mais bokkal yi Modou Modou Lo daal na leen. waaw mais mais tey mais mag jar na bàyyi si réew. tey gis nga Solange bi nga xam ne mi ngi mi ngi wéy. gars yi ne nañ paate moo ko dese paate dégg nga ne la pare na pour affronter Modou mag jar na bàyyi si réew nañ bàyyi pourquoi pas paate tous jël affaire cartouche bi gars pour jàppale ko mën na mën na paate paate bu ñu ko waxee waxu Modou de wax bi dem na si demi mesure de waaw ah, mais xam nga nag ku daan jeunes yooyu ak loolu moom. si si waaw ah, mais nag comme sport de combat moo mel mhm. noonu. c'est-à-dire que day am favori. Mhm. am lu wax bec noir. surtout loolu amna na ko wax mën nga dugg fenn reña fa c'est le mhm. cas de Boy Niang. Boy Niang def géejawaay. Modou Lo confirmé def ko def ko loolu. donc loolu moo nekkoon showbiz bi. benen bi akum. daa mel ne bëgg a bokk élection yom na de mais parrainage yi la na gars parrainage yi kay man da affaire yi dafa mujjee jaaxal saa si xalta am na ñu ponkal leader yu ñu jàppoon ni dañuy jàll facilement mais daa mel amna am na ay jafe-jafe. jàll. mais surprise bi nag. daf ci mm. am ñoo xamante historique gu euh, élection ak yooyu dafa mel ne club de football daa am club yoo xam ne dañuy am tour mm-hmm. am na ci seen jàll d'office la. ku ni ay mm-hmm. Idrissa Seck. ay Idrissa mm-hmm. euh, euh, benn jigéen bi jàll defagum surprise mooy Anta. mooy Anta Anta Ngom Anta Ngom Anta Babacar Ngom suñu suñu voisine bi donc est que tey base électorale amati na. est-ce que du affaire bi mi ngi liggéey bu ñu fàtte aussi ñu Anta. malgré que yi ñu ko dem critiquer naan daf ñuy jaay pauvreté bëggul loolu gis nañ ko mu dem malgré que jigéen la même bu gisee ñaari nit wala ñetti nit dina taxaw wax ak ñoom saafonte leen c'est-à-dire nit ñi ku leen jege lañ bëgg loo fi nekk politicien loo mag jege woon nit ñi toog sa bureau di yónnee ay parrainage si ay mouvement ak loolu gars yi dañuy dem photocopie quarante yeeg jënd ay quarante jaay ay doublon non dañ si gis ku ne la am naa deux cent quarante mën ko jaay wala affaire yooyu mm-hmm. donc day loo xam ne amul njariñ mm-hmm. donc jege askan bi dem sàkku di amantu nank-nank di def say auto di leen romb ni ñi di la reetaan ngay mhm. saafonteen dëkk bi mhm. je pense que Anta tey wane na exploit étant seul jigéen boo xam ne validé nañ ko validé na pour l'instant waaw pour l'instant moom lañ amagum très bien man si si Anta laay laay commencé sax ndax man Anta Babacar moom mm. ah pour dire vrai quoi eh, Sénégalais dañ ko doon roubé à travers histoire bi nga xam ne mi ngi ko doon expliquer mm. biographie am ni mu ni mu def ba toll fi may pauvreté très bien dund na mm-hmm. pauvreté Sénégalais dañ ko doon def challenge di ko tooñ mm-hmm. mais Anta Babacar dafa am courage bu ma gis si moom mm-hmm. maanaam dama dama dama gis ne moom moom moom du découragé. tout à fait comme xam moom bu nee lii rek lii la. ñu ko dem TikTok di ko challenger di ko reetaan day ñëw si ay nit. Mhm. gars yi di yuuxu sonko sonko mais day ñëw bëggante ak ñoom nuyu leen savante ak ñoom. en fait ba mu dugal amour si si gars mhm. ba gars yi ko bëgg comme xam nga boo jëlee Anta Babacar nga jël Idrissa Seck bu ñu ko tegee nii avant parrainage di génn yow bu ñu la nee ñaari kan mooy génn automatiquement. Mhm. Idrissa ngay te gis nga affaire yi dafa ñëw def le cas contraire. mais bu ñu tamit ni bokk na ci ci ki gëna dugg ci raison yi gis nañ ko fi le cas de Matam bi koy gazé. noppaliwul benn yoon ak yoyu moom toogul benn gëm-gëm am solo. parrainage bi mi ngi noonu je pense que ñu bari déposé won lañ mhm. ñun tamit euh, au niveau de.

ñu dem ñaan mu jàll yalla def na jallul donc pour l'instant dañuy xëcc nak bu dag bu dagul dëkk tu vois mm-hmm. comme c'est la première fois mo mu ci ciy bu dem ba mm-hmm. manki ay 300 et quelque mm-hmm. lolu bon man nañ ko féliciter quoi tu vois absolument euh, absolument il a félicité rien que de participer il a vraiment assuré quoi tu vois bon ñu ngi koy féliciter bu baax a baax a di ko xamné bon benen yoon mi ngi fi jarul décourager bo xolé ci Anta Babacar rek do décourager do décourager amna nañ aussi benen cas ku ñuy wax euh, Mamadou Ly Mamadou Ly wa mais Amadou Ly muy Akile Okay. C'est le gars qui a théorisé li nga xamante ni mooy euh, les compteurs euh, yi nga xamante ni woyofal muy mm. compteur artificiel si si si compteur intelligente ak loolu moom mm. aussi mi ngi dëkk fii euh, au niveau de Kër Massar mm-hmm. donc Ferté la aussi mm-hmm. bokk sa ñuy créer surprise bi mm-hmm. tey jàll na deuxième tour am ay nombre yoo xamante ni war na mm. et que on espère que amoon na réserve wala tey ñuy dëkk au niveau du euh, département de Kër Massar te parrainé wu ñu aussi ñu ngi leen di woo ñu koy parrainé ko. ak yeneen moom ñu mën a complété ak loolu. mu mën a complété loolu ginnaaw loolu showbiz bi. waaw showbiz bi balaa balaa ñuy ñëw si showbiz bi damay hmm. ñëw si suñu jigéen Fama Fama Diagne. Hmm. Fama Diagne nag à l'instant moom mooy def bës si li nga xamante ni moo di plateforme digitale yi. ndax dafa daal di euh, parier 300 francs mu gagné cent million Mm, si expert wallaay ndeysaan 300 francs la parié <laughs> xoolal toos di ma xoolaat mm-hmm. <laughs> moom xam naa 5000 sax mosu ko gagné si expert bi moom dafa parié 300 gagné 100000 euh, francs 100 millions de francs ci loolu noonu mais yow looy wax jeune bi si naar bi waaw xam nga jeunesse bi si mm-hmm. euh, lii nii lii day encouragé booy waaw mais xam nga lii day encouragé booy mm-hmm. dafa am ñaar yu koy suscité nit buñ demee ba mun a teg seen live si carte. Mhm. muy colle ñuy yaakaar mooy booy amatuñ benn source de revenu. Mhm. et lii du kaawu Sénégal rek. Mhm. partout ay France boo demee carte dafa développé. am na ñoo xam ne ay parieurs diine bu nekk wala diine yi cautionné wuñ ko c'est arrêté. mais day wane manque de de de source de revenus bu nit ñi mëna a créer. Mhm. day wane taux de pauvreté parce que quartier yi fu pauvreté. Mhm. gëna développer mhm. nit ñi japp ni sen sens mëna nek nekk si ma joué comme ki tay ni ko defee. c'est encourageant semaine bi da ngay gis ñu ñu bari euh, jouer man tax 300 mom amoo paas bi trois trois cent nga am si cent millions. man am naa deux mille cinq cent yu ma waagaan joxe su du ma ko jéem a tànt mais problème mooy amoo lu lay garanti ni da ngay. amoo lu lay garanti da ngay gagné. te moom bi muy dugal trois cent yi man leeroon na ma musul xaar day gagné. day gagné mu tànte c'est une question aussi de sens. de sens euh, quoi waaw. Mhm. on veut pas dire que ni yàlla mooy may kon dafa mhm. interdit carte wala yooyu. waaw Alassane daal loolu mooy loolu mooy def euh, également ah, bés mais également gis nañ ñenn si jeunesse bi di wax jot nañu dugg si naar yi même ñu dugul ñi amutoon wan expert nee nañ dañuy télécharger pour dugg si naar bi tànt seen sens mhm. te quelque affaire la boo xam ne dafa xaw a doy waar quoi. Ah, dafa mais xam nga nag réew wala avenir u nit kenn du ko teg si carte. wallaay wallaay. loolu tamit même su fekkee am na ñu mën a gagné ak loolu. Mhm. probabilité perte moo gën a yomb. moo gën a yomb et nit ku nekk sa dund war nga si mën a laay faay xeex ni nga koy rombee Kër Massar di gis nit ñi. Mhm. fajar gi boo rombee da nga xam ne banlieue bi ay jàmbaar lañ. ay jàmbaar lañ gis ñu yor ay peel ñu yor dara lépp taxaw. Mhm. si suufu pont bi di xaar ku leen décroché. pour ñu dem liggéey ñun ñu jóge feneen ñëw ak loolu avenir liggéey moo koy yor. donc euh, teraanga ak sa faj sa soxla yaa ngi koy teg si liggéey mais pas si ay jeux hasard si ay carte ak loolu. xam naa nag yëkkatu naar yi moom duñ dàqoo si yooyu

mom mi ngi rassurer soxna aydra mi ngi rassurer sénégalais yi di len wax carrément Wally blago Seck du tak ñaare soxna aydra rek moy doon jabaram sénégalais yi nak ñu ngi ci critiquer di ci waxtan di ci wax lu nek mais bon peut être moom aviam rek la gis d'après lu mu gis entre Wally blago Seck ak soxna aydra amour bi confiance bi compréhension bi peut être loolu la gis motax mu ne soxna aydra du am ñaareel ah mais xam nga lébu yu ne way way bo xamanteni day suxal gal ken du ko way si biir géej do nek ci kër jambour aussi di fo wax loolu sauf que ni da nga wara ki mais bon yoy yep mais bi tamit je pense que Sadio Mané ñu ngi wax ay mariage am donc mhm. artistes yi ak ñi nga xamante ni ñooy homme populaire yi ñu ngi nekk si mariage yi. Sadio Mané tamit jot na moom jabar waaw mais nee nañ am na benn. boobu ba léegi nag ñu ngi koy wax. waxoon nañ ko fii euh, am. d'après les commentaires gis naa ñu ne fake news la de. waaw waaw ne waxaat nañ ko mais. Mhm. mais xam nga Sadio aussi sportif. Mhm. Mhm. si si yenn code de popularité yi amatoo vie privée. wallaay donc nit ñi dañuy dugg sa vie. sa vie aussi c'est c'est à kii alors tey daal loolu laa indi woon man personnellement loolu laa indi woon ci li nga moo di milieu showbiz bi mais nag samedi chaque samedi damay damay daal di tënk résumé li xew si semaine jox ko si jox les si donc on se donne rendez-vous pourquoi pas demain waaw ah, c'est possible mais avant loolu dam bëgg a sama sama sama sama sama kii samay sponsor bi ki fi jaar waaw xësaa ah, couture sa tailleur fa nga koy bolé nit ñi de sa tailleur bi yow rek lay habillé non mais xësaa couture dafa man tonto waagaan est-ce que doo ma zoomal lii nga jëlal ma si suuf alors xësaa euh, couture mo fi jaar xassa bu Moustapha l'international mom mi nga xamné ne lu mu ñëwul bu xësaa euh, bu Moustapha 76 430 27 48 bu dee appel normal également man nga ko ci 76 290 30 42 76 290 31 42 alors buñ paree ci loolu aussi Cheikh am na sama jigéen boo xam ne à tout instant damay ànd ak moom ci li nga xamante ni moo di émission bi nag dañu xumbule ah animateurs yi ñoom dañu ah, yor si si si am na sama euh, benn jigéen boo xam ne damay damay ànd moom ci émission bi à tout instant mm-hmm. mi ngi tudd Necessita euh, groupe maanaam Necessita global group moom day jaay day jaay ay produits ay produits divers mm-hmm. euh, également daf koy jëlee extérieur indi ko si Sénégal mm-hmm. bu neexee gars yi ñu commandé ko dafa tijji bu benn groupe WhatsApp boo xam ne dafa bëri ay nit. lay produit yi di commander jël ko. plateforme la très plateforme quoi tu vois rek wax. day ay produit la nga ko tu vois mhm. et groupe bi euh, gratuit nga si nga mhm. par lien tu vois ça coûte pas cher alors mom ko ko contacter da ngay def 77 294. 12 30 117, 294 12 30 nécessaire global business euh, euh, euh, daa mel ni tey daal lii laa indi wol li nga téléspectateur donc ñu les période tay la wara a terminer affaire yi sénégalais yi tok di xaar. ñuy wax nit ñi que ni choisir candidat parrainage ça n'a rien à voir choisir euh, candidat yi. Mm-hmm. coow lu bëri jub si am na ñoo xamante ne nee nañ bu ñu leen passé le au deuxième tour ça veut dire que c' est l' état qui choisit. c' est le mm-hmm. cas de Diomaye Faye. Mm-hmm. tey Pastef ak nu ñu munti mel mën nga seedee ni du ñu def ay doublons. si si ñu téye woon seen parrainage la di xaar mais loolu dinañ si ñëwaat suba. su fekkee akum day leeral te invité nañ ñu aussi mën nañ si déballer. loolu yooyu moom dinañ si déballer. di gërëm di di wax ni nag il est temps que si

wax seen xalaat lu tax ñu war a choisir ak ban candidat lañ war a choisir yan critère la ñuy choisir ay candidat yu yëpp sant ak gërëm ñeel waagaan bi nga xamante mooy patron bi fii ci télé bi waaw si dinaa la invité sama émission nga ñëw ñu dugg moom neex na neex jëf